moom ci boppam. mooy la nga xamante ne bii ba yàlla ñu gis ni ko su jóotaloon aadama. bañ bu mu bañ ñu ngi mhm. moo ko teg lu mhm. na ni. Mhm. terewoon nañ ko. def naa dañ ko doon tere. te teewul ko. waaye nag loolu. waa euh, salaamaaleykum. mbëggeel ñu koy wax mu ne laajoon nañ ma ko rek ci Amérique amagul ñaari semaine xam naa bu kaset bi dikkee da ko bu dikkee da ngeen ko dégg waaye ma jaaraat ci kon fii rek mbëggeel xam ngeen ne ay xeeti mbëggeel la am nit dana bëgg lii ndax njëriñam nit dana bëgg lii ngir rafetaayam nit dana bëgg lii ngir yéem ko yéemu ci nit dana bëgg lii maanaam li ñuy wax naan l'amour commercial bëgg koo xam ne njëriñ nga cay wut l'amour sensuel xam ngeen ko l'amour sensuel ay amour yu bari ay bëggeel bëggeel nag ni nga xamee ne bi ci gën a dëgër mooy bëggeel goo xam ne daanaka amatul illa ni ñu waxee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam sina abou bakar maanaam dafa bëgg muhammad mii yonente bi sidna omar bëgg yonente bi nga xam ne mooy muhammad loolu wute ki nga xam ne muhammad la bëgg fekk Mouhamed di yonent moom Mouhamed la bëgg ba nga xam ne bëgg doon yonent def ko bëgg bëgg boo xam ne mun mën a mel bëgg na ko bëgg bu mënul a rey mooy bëgg bu amul illa mooy bëgg bi gën a dëgër ci bëgg yi Sidna Omar daf ko bëgg dafa bëgg yonent bi fekk yonent bi mooy Mouhamed kon yonent gi mu nekk moom la ko bëggee bëgg bu am doole ba waaye ba tey bëree ko ëpp doole nga xam ne moom daf ko bëgg ba nga xam ne nee ñu sëriñ bi bëgg bi nga xam ne moom nga ko war a bëgg ba mu mat boo ko gisoon mu mooy yàlla yi du tax nga nga sa bëgg gi wàññi ko bu la xañoon li nga bëgg lépp du tax mbëgg gi dara wàññi ko bu la defoon li nga gën a bañ it du tax mbëggeel nga dara wàññi ko ci mooy mbëggeel bi mag bu nga xam ne amul illa te dara mënu koo fonk dara mënu koo dindi am taxawu noonu lañ gisee mbëggeel tax mbëggeel ah, mbëggeel day dindi adam manam mbëggelu taal ci seen deej ngi nitel gi nité gi mu nekk nité melaw nit wi dañ koy dàq mas nañ ko nekk ni ci beneen conférence bi waxee ne sëñ Tuubaa dafa doon jàpp taal bi njëkkante jàpp ni di ko naan ak di ci diw benn naa ne ko war man dañ ma jaaxal sa njàpp mi ñi di ko naan te njàpp mën na na am sobe ndax da ngay raxas sa ay cër loolu la xamul lu war mu ko suñu borom dafa leen nëbb sama ay maanaam nekk gi ma nekk doomu aadama sax feeñatul si ñoom gisatuñ ko ndax xeeñ yàlla ba nga xam ne daraam feeñatul lu dul yàlla daraam lépp am nëbbu na yàlla rek a feeñ nga xam ne daanaka ki koy xool dafa mel ne yàlla rek la xoolee kooku moo ko bëgg bëggeel bi nga xam ne dara mënu koo dindi te dara mënu koo wàññi kooku mooy tax a àgg ndax sëriñ bi wax nañu ba taay ne taalibe bi buum gi ko yeew ci sëriñ bi mooy mbëggeel bëggeel ni ñu waxee ne sëriñ bi ci boppam daan wax ne sama bëgg gi ma leen bëgg du leen jëriñ nga waaye bëggee bëgg gi ngeen ma bëggee yéen moo leen di jëriñ kon nag taalibe bi ko gën a bëgg moo gën a mën a gaaw a jëriñu ci moom kon mbëggeel ñu euh, ma ko wax nag bu fekkente ne kaset boobu ñëw moom dugg naa ci détails yi ndax benn laaj la Euh, bu ñëwee da ngeen ci waaye pour gannaaw leneen la am na ñu gàtte ñi ci loolu waaye bëgg gi mooy boo loo bëgg te dootuloo ci rek booba def du ko bëgg ñi nga xam ne nag dañuy def inkaar mbëggeel boobu dañoo di mul fi yaatu boo demee Égypte rek taalibe euh, Cheikh Ahmadou Badawi bu ñu bu ñu ràññee ñi si jàppee Amadou Maras jooju di sikkar ba mu yàgg dañuy mel ni gaynde mel ni ñu dof xamatuñu dara ma ne xanaa ku xamul Baye Fall ñi ñooy Baye Fall dëgg mooy ci jommi ci jommi dañu ne boo jommee ci suba te war nga jommee jinne ne dara jëloon ci suba jinne ju ndaw la waaye jinne ju mag boo dajee moom bu la ñu la di wax dootoo jommee ci mukk këñ mën nañ koo taalaat mën nañoo taalaat jëli waaye doom kenn mënu koo taalaat mu tàkk taalibe bi dëgg noonu la war a mel ci sëñ bi léppam la war a bëgg lépp lu ko xas ne Seydina Abdoulaye Mouhamad dafa daan nekk ci benn ceeru garab bu san buy soog a sax di ko jubbanti di samp barab di ko ci yeew di ci sotti ndox ñu ko ne waaw gii lu mu lay jëriñ mu ne yonent bi sànq dafa toogoon ci wetam bëggeen dëggal boobu bëggeen boobu nekk li naan si kii boobu si naa Omar ibn al-As ci ñetti tolluwaay yi mu toll ak ni mu gën bëgg yonent bi sànq ba xam ne mënu koo xool ba ko ko laajoon nu yonent bi mel du ko mën a misaal ndax mosu koo ko jërëjëf président yaakaar naa ne am na beneen boo ci tegoon mooy diggante al amru wa nahy maanaam diggante digle jëfe digal ak bàyyi tere ndax ñu doon waxee ni iblis maanaam euh, jëfe digal ni ko yàlla digal ni ko sujjóotal aadama ñàkk bu ñàkk a jëfe digal yi moo ko teg tey jii ko dal euh, su su suñu maam aadama itam xam na ni yàlla da doon bu lekk ca garab bee lekk bu mu ca lekk loolu da koo teral waaye teewul bu moytu ko am na bu mu jaarale mu jéggalu ci la jéggalu ba suñu borom jéggal ko d'accord waxtaan bi mën na guddi de loolu de mën na bari lool waaye gàttal gàttal di euh, def tere yi ak bàyyi yi ndigal yi yëpp garaaw la lu ci nekk lu rëy la a indi ak texee di waaye nag ñu dugg ci détails yi misaalum Adama ak Iblis faral nañ koy waxtaane Adama ak Iblis nag dañoo wute ci façon moyen benn moyinu aadama mooy liñ ko tere mu def ko Iblis a ko sabab ñaareel ba aadama ci boppam gannaaw ku ñu yërëm loon ca azal nga xam ne defaru gudul gudootul yàqu la dafa daal di tuub aadama ci boppam bu mu bu mu lekkee ci garab bi dafa dal di nangoo nangutul wëlbatiku fu xelam fu mu fu mu jublu rek xelam dem ci suñu day wëlbatiku foofa suñu borom di ko natt ne ko xanaa da nga may daw mu ne ko déedéet dama lay rus dama rus yére yim soloon yépp wadd mu dagg ci cari garab yi di ko muure boppam aadama ci boppam bi nga xamee ne def na loolu mu def te mooy garab bi ñu ko tere woon mu lekk ci am na yu bari yoo xam ne yii li ñuy wax circonstance atténuante am na ci ndax benn iblis ba nga xamee ne mënu la fexe ba dikk ci aadama wax ko sant ko lu yàlla tere mu def ko mu jaare ci xawaa ndax li xawaa nekk jigéen xawaa ci boppam moom moo tax li tax ñu ne inna kaydakunna azimun la ji la iblis tere woon ci aadama xawaa moo ko mën ba mu jaaree ci xawaa la ko def iblis iblis aadama euh, bàkkaaram moo gën a woyof ndax dañ koo juumloo fàtteloo ko iblis nag bañ gi mu bañ daf cee boole rëy ak ndëkk yàlla ndëkk suñu borom ci bëri ne ko man maa gën ki nga may sujjóot loolu ñu wax ko wax sujjóotalal mu bañ bañ gi mu bañ mu sàkk lay ngir maanaam justifier boppam wane ne man yaa ngi ma bind ci ndax aadama ba nga xamee ne suñu borom xàjji na ko dafa dal di dellu gannaaw toraxlu jooy na nangami jamono iblis nag dafa daan def tëjabur moom ak takabur dal di moom dal di gis boppam walbati wane ne moo gën aadama indi daal ak rëy gu mat sëkk ak bañ gu mat sëkk boo xam ne rëcc wu ca dara dafa dal di wane ne li mu nekk mooy dëgg ndax jaamu na suñu borom waxuma fenn waaye ci suuf si ba nga xam ne nee ñu foo def sibra si iblis su jot na fa nekk na sangu malaayika yi maanaam malaayika yi newoon ci suuf nekk na seen sangu nangami arab iblis jàng na ci ma fos ne buñ demee ba ci jamono sàngam suñ borom dana digle dara dana am ci malaayka yi ku bañ gëmul loola ba bis bi nga xamee ne suñ borom digle na ñu su jot ci aadama mu ne nag mu ngi seet ba xam loolu ñu waxoon ndax am na kenn ku ñemee bañ wala déet moom wu ci boppam jàpp ne moom moo gën aadama ba warula su jot bi nga xam ne malaayka yëpp su jot nañu ba àggale wàññi ko nag fekk mu taxaw ñu ne waaw yàlla dana du su jot dana du su jot rëy jàpp ko mu ne leen man du ma su jot maa ko gën kon ba tey wuute nañu xeetu mooy ndax ki nga xam ne dafa mooy ba noppi xam mooy gi rëccu ko tuub kooku moom ku tuub suñu borom daf lay jéggal ku rëccu itam boole woo ci rëy suñu borom dana la yërëm waaye ki nga xam moo moo ci boole rëy ba noppi jàkkaarloog suñu borom wan ko ne loo man defal nangam lii ma ko def dafa boole yeneen bàkkaar boole na ci rëy boole ci réer boole ci dënd akub bañ akub wane ne yàq suñu borom yooyu ñu boole yépp moo tax nag suñu borom moom baalu ko ndax baluwul jégalul ba fee mu nekk buñ yom yomal xiyaam ba mu lakk ba lakk ci safara yi ay junni junni at buñ ko nee tuubal su jot ci aadama te ñëw àjjana du tax mu nangu du tax mu def ko nga xam ne ko kon moom ca azal la ko suñu borom bindoon ci fa mu war a jëm ba noppi waaye moom ci boppam moo ko dëggal ndax sabablu mooy waral suñu borom moom jaam bi day sabablu moom mooy dogal dogal bi muy dogal nag fekk ne jaam bi am na ci wàll ndax moo ko sabablu mu fekk ko ca ndax suñu boroom bu fekkoon ne day jëf rek te duy sàkkul ay sabab ci ko suuf si kon ñëpp xam ko waaye nag sabab yi mu doxal digganteem ak jaam ñi mooy tax euh, ñeen nag ci jaam ñi kiiraay yooyu nëbbu leen ba duñ xam yàlla ñi nga xam ne nag ñoom ñoo xeex ba xam yàlla ba xam ne sabab yi gisatuñ ko ñoom la suñu borom gën a yërëm waaye nag sabab yi moom mooy ci la jaar ba ci mu ku ñu lakk ci lañ la lakkee yaa sababu la tax ñu lakk la ku ñu yéenam itam yaa sababu la tax ñu ërwi gannaaw ba nga xam ne coobaral suñu borom am na ba noppi kon euh, di ndigal ak def luñ la tere ñoom ñaar ñëpp a garaaw waaye bàkkaar bi nga xam ne sa bopp danga koo def ba noppi rëylu ko mu rëy nga xam ne daganaloo ko mu gën a woyof bàkkaar bi nga xam ne même bu tuuti woon da nga koo daganal wala nga rëccuwoo ko nga ne maa tey bàkkaar bi mooy bi gën a màgg bu fekkente ne nag dañu ne la nag defal lii def gi moom nga ñàkk def gi def ko nga bañ koo def moom réye ko gën a te muy loo man lu wóor ne man nag réye ko waral buñ laal lii nga laal ko nag mën na am loo xam ne moo tax nga laal ko benn muy irtiraar moo di ci nanguñu daal xamuñu ko mën a am contrainte xamuñu ko mën a waxee ci wolof ci lott ci daal mën loo koo ñàkk a def am na ay sabab bu ci nekk nag boo ci xam ne nag amul sabab boo xam ne dana ko def tabliir bu ànd ak ci wala dara ci inaat mooy dëng loolu mooy bàkkaar bu gën a rëy bàkkaar xam ne nit ki moom jooy na ko lu mu metti metti bu ko jooyee rëcc ko rek bu tuubee suñu borom jéggal ko tuubit ñu am na ñetti sart ni ñu ko daan waxee rek. loolu yaakaar naa. kon ah. loolu leer na te itam ñu ko waxee woon leer na bokk yi fi ñu toll nii. Mm-hmm. Ah waaw wax dëgg. yaakaar naa ñeenti waxtu li ci des mooy ñaar